tey jii nag euh, liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy def tey euh, lu solaane la loo xam ne lu mësul am ci taarixu Colobane la mooy ñu woote ngir waxtaan ak askan wi euh, ci lu ñu defoon ci lu ñu fi fekk ci lu ñu def ak ci lu ñu mébét loolu nag defuñu ko ngir lenn lu dul exigence su leeral jamono moo toll foo xam ne euh, képp koo xam ne dañu laa dénk dangaa war di leeral li ñu la dénk lan la te leeral bi du ñenn lu dul askan wi nga xam ne ñoo nga jiite askan wi nag ñépp mënuñoo ñëw waaye boo wooyee couche yi maanaam euh, ñi nga xam ne ñoo gën a représentatif chef de village soxna yi ndaw ñi góor ñi ak yenn koor yi suñu ñëwee dinañ mën a ànd ak ñu wax liggéey bi nga xam ne euh, ñoo ngi koy liggéey ci gox bi fuñ ci toll ak fuñ si jëm su dee am na ay rëq-rëq euh, occasion la ñu jox micro ñenn ñi lu ñu war a joyanti ñu ne ñu gën ñoo euh, ñaaxaat ñu joyanti boo jëlee mbirit ci ay loxo day jaadu nga ne lii lii laa fi jëlee euh, fii laa ko fekk nekkuñu ci di viser ay nit nekkuñu fi di xalab ay nit nekkuñu fii di euh, wax lenn lu dul discours lu doon lu jege discours politique wala politicien te loolu ndaw yi nga xam ne ànd nañu ak ñoom ak ñun teg benn programme boo xam ne moom la war a liggéeyee ak Colobane euh, moo tax ñu sabab mm, ndaje mi pour euh, ñu wax xam li ñu fi fekk li ñu fi jot a def ak fan lañu jëm euh, xalamu nag dajut suuf ci juróomi atit lañ ñu fal ñu tàmbali tey nekk téeméeri fan kon téeméeri fan yi tamit du caagaay ne euh, euh, lu ñu war a euh, def la obligatoirement ci téeméeri fan yi waaye xel moo xel yu bari dañoo nangu ne boo nekkee ci mbir ñetti weer ak nangam mooy téeméeri fan ñetti weer ak fukki fan war nga caa mën a xam mbir ma nu mu tëddee ak loo ca fas yéenee def looloo waral bi ñu toogee nekk ci fu fu téeméeri fan ñu nekkoon kon nañu ñëw jàkkaarlook askan wi suñu jëlee poñ bu njëkk bi nga xam ne moo jëm ci wàllu mairie bi ndax loolu la ñu dénk euh, mairie yi euh, bi ñuy dikk fekkuñ fi budget bu ñu voté bo mairie ni muy doxee premier janvier ba 31 décembre budget bi moom lay couvrir mairie yu bëri Euh, bi nga xamante ne élection yi war na ñëw voté nañu seeni seeni budget avant le 31 décembre loolu bokk na ci signes yi nga xam ne day tax ñi yenn bailleurs yi financé dana mën a xam ne ñii kat ñoo ngi ci yoonu li ñu leen di sant ak li ñu leen di digal ñu di ko def waaye ñun bi ñuy ñëw fekkuñ fi budget bi ñu voté Euh, doxalin bi ñu fi fekkoon tamit doxalin bu tëju lañu fi fekk loo xam ne lu mel ni lii daaw ci am euh, pour information entre population bi ak mairie bi euh, da doon manqué fekkuñu fi aussi ak jegalante boo xam ne ñi nga xam ne ñooy ñoo moom mairie bi muy askan wi seen accès ci mairie bi doonoon na loo xam ne doonu lu lu yomb si ñoom loolu nag du suñuy wax lu ñu fi fekk la lu ñu gis la lu ñu askan wi wax ci bi ñu fi toogee ci diggante bi du ñu fi nekk benn jour te nit ñëwul doon kilifa am juróom-ñaar fukki at wala nga am juróom-benn fukki at ne ma maa ngi door a dugg ci bureau bii nii te loolu jàpp naa ne euh, suñu suñu suñu moomeel la lii suñu moomeel la ñun ñëpp. réorganisation nag moom lañ ci def mooy changé nañu secrétaire municipal. ki doonoon secrétaire municipal doonatut secrétaire municipal Serigne Mbacke Ndiaye bi mooy léegi le secrétaire municipal. changé nañu également euh, chef état civil bi euh, bi ñu ñëwee xool nañ leen xam euh, jàngat nañu leen xool nañ ko ñu gën a wóolu ca loola dénk nañ ko état civil bi ñeneen ñi ci des tamit ñii ñi ngi ci seeni post ñi ci des ñi ngi ci yeneeni poste bi ñu ñëwee fekk nañ fi benn blocage lotissement boo xam ne depuis 2016 ba léegi euh, avancé wut donc depuis 2016 ba léegi fekk nañ fi lu ëpp ay 700 demandes yoo xam ne ñoo ngi fi toog te amuñu terrain ñii bëgg nañu kër mënuñoo am kër ñi bëgg nañu terrain mënuñoo am terrain fekk nañu fi également ay délibération yoo xam ne. Euh, yii approuvé wuñu ko fekk nañu fi ay kayit yu jógee yoo xam ne sous-préfet signé na mairie signé na waaye boroom mënta xam ana fan mooy terrain te loolu depuis 2016 moo ngi ci benn ngi nii ma ci téye kii boo xoolee def na lépp fay na frais de bornage defal nañ ko certificat administratif am mais nii mënulaa wax ne fii mooy sama sama te loolu euh, ay téeméeri téeméeri nit la yu mu concerné euh, délibération yooyu nag euh, ak manque d'information boobu ci foncier bi problème la boo xam ne jéggi na daw doye donc désordre boo xam ne moo fi nekk de telle sorte que di nga gis ñoo xam ne am nañu euh, ay terrain ci euh, ci gaawantal dem njëkkalante commencé euh, tabax te amuñu këyit benn këyit bu lay firndeel ne lii mairie moo la ko jox donc loolu aussi lu ñu fi fekk la éducation njàng mi njàngale mi mairie moom moo yor njàng tout tànk mi maanaam élémentaire bi foofu également bi ñu fi ñëwee fekk nañu fi euh, rencontré nañu déjà acteurs yi muy directeur euh, d'école yi am nañ benn collectif ñoom ñu gën a xamalit jafe-jafe yi nga xam ne amoon nañu ko en bokkoon nañu ci ci ñoom seeni jafe-jafe yi manque d'information bi waaye bokk na ci euh, barab yi nga xam ne ñoom ñi ngi koy jàngalee ba léegi Colobane ñi ngi am ay ay mbaar yoo xam ne ci la xale yi di jàngeen te léegi gis nañ ni nawet bi tàmbalee te école tëjagul fi mu ne bu tawaatee suba xale yi war a jàngi euh, ca mbaar yooyu danañ am jafe-jafe ndax mbaar yooyu mënul téye euh, ay taw ngelaw ak yooyu te loolu euh, fekk nañ fii lu toll fukki abri maanaam fukki mbaar ak ñaar ci biir commune Colobane fukki école yeeg juróom-ñeent yi fi nekk ñeent ñoo ci am clôt ñu du clôture te bëri na ci ci ñoom it yoo xam ne amul ay toilettes ci école yooyu am na ci également euh, yenn école yoo xam ne boo demee salle de classe ya fi ne euh, yàqu-yàqu ba jéggi na dayoo euh, boo demee ngay danga nga fa fekk salle de yoo xam ne yu ñu tàmbali la ba tey àggut la fa nekk yàqu boo demee teg école ba ñu ngi ñaan yàlla mu rëccaat ci nawet bi ah, balaa balaa def dara ñu mën kaa ñu mën kaa lijjantiwaat waaye niveau de yàqu-yàqu bi wóorutul sax ci ci xale yi. créé nañu également wala ñoom ci processus création ay comités locaux yoo xam ne dañoo war a jëm ci wàllu foncier bi parce que yeneen village yi nga xam ne ñoo wër Colobane dañuy am jafe-jafe yi nga xam ne moom la Colobane am ñoom it léeg nga bëgg kër doo mën a am kër. léeg-léeg nga bëgg cantine doo mën a am ah, loolu nag ah, loxo mairie waru cee jóg. waaw pour la mairie. bâtiment yi ñu fa fekk également. seen niveau de délabrement et tellement avancé. avec taw bi fi jot a xew rek. saal yi dañuy commencé seen même le bureau du maire ma ngay seen bâtiment yi malgré réhabilitation de façade bi. aussi les bureaux sont exigus niveau d'avancement wu délabrement bi foog na trop na ko donc bi ñu defee constat boobu on est allé vers les structures de l'État pour au moins faire partie du programme de l'État qui jàppale mairie yi pour ñu am un hôtel de ville c'est à ce titre que nous avons bénéficié d'une nouvelle mairie boo xam ne incha allah ce sera sur un étage plus 1 qu'on construire sur la pour plus de visibilité. ci li nga xam ne bokkoon na te ñu wax ko léegi ci euh, rëq-rëq yi nga xam ne gisoon nañ ko muy communication information bi nekk ci diggante askan wi ak mairie bi bi ñëwee aussi indi nañ fi leneen lu bees mooy euh, ci ñun. tànn nañ ci kenn si ñun koo xam ne mooy gàddu mooy yor communication bi lu xew ci commune bi mu siiwal ko euh, loolu it désigné nañu ko euh, mu nekk kenn si ñun di fi liggéeyee waaye euh, créé nañu également benn site boo xam ne lu officiel lay doon ko loo xam ne ku nekk ca Europe wala États-Unis wala bitim rek wala nga nekk biir Sénégal te nekk ko Colobane soo bëggee dugg boo bëggee am information yi nekk Colobane dangay ngay dugg ci site boobu pour ñu mën a pour nga mën a am li fi xew pour nga mën a xam projet yi pour nga mën a xam ne lii actualité ci dëkk ba loolu euh, dafa laaj euh, ab liggéey euh, am nañu consultant bi koy def defar nañ terme de référence yi koy def te ñu ngi koy liggéeyee ak kuréel gi nga xam ne au niveau national la nekk muy ADIE pour que information yi nga xam ne soxal na doomu Colobane ak foo mën di nekk nga mën koo jot. par rapport à la radio communautaire. moom ci programme bi nga xam ne financé par le PNDL appui PNDL ci lañ ko war a defee. donc la radio communautaire tout le temps tout la zone de Colobane amuñ radio communautaire. Euh, c'est un besoin boo xam ne pour communiquer aujourd'hui radio communautaire c'est une nécessité. qui fait que quand nous la subvention du PNDR ci la ñu prévoir une partie pour l'équipement de la rajo communautaire bi nga xam ne à titre individuel ñun ñoo ko démarré woon ba bind ci euh, déposé au niveau du ministère pour les autorisations de fréquence bi ñu accéder au pouvoir nag nous avons jugé que plus de transparence et d'équité nañu verser ce que nous avions fait à la communauté et par conséquent à la mairie c'est pourquoi l'équipement sera pris en charge par la mairie ay ndénkaan lañu rek dañ ñoo dénk te dénk bii ñu dénk amat exercice bi mu def dafa am solo ndax loolu dina wane ne ñi nekk ci ginnaaw dénkaane ñoo ëpp importance sax ñi nga xam ne ñoom lañu dénk te war nañ saa su rek ñu def ay taxaw seetlu wax nit ñi fii lañu jëm pour que bu jubul ñu jubbanti ndax nit ku dul jum yàlla bind ko am na ñaari kilifa yi fi intervenir léegi dégg naa seen wax waaye ko ñooñu ku leen dégg li nga xam ne ñoo nit ci feuille de route bi buñ leen joxee ay page dinañ ci mën a bind lu bëree bëri te lépp njëriñu askan bi rek lay doon amaan nag yàlla dafa dogal bi ñu àndee di politique ñu déggoo lool te askan bi rek tax ñu def ci conseil départemental liggéey bu am solo bi nga xam ne moo ñu may li ñu am le 23 janvier 2022 population département Gossas yëpp ñu wéyal leen liggéey bi ba pare sax dénkaat ñu leneen li nga xam ne dénkuñu ñu ko loolu moo tax mënuñu doxalee lu dul nii waaye façon bii ma ko defee moom kooku ci xarañteem la ak yi ci pexeem te man xam naa ne sax dinaa ko def Gossas ndax man rusuma roy ci lu baax rusuma nit def dara mu doon lu baax ma topp ci di ko def ma dara dinaa dem waa Gossas ma ma ne leen 100 jours lii laa def di remercier aussi population di ci seen mobilisation ndax nit bu ngeen ko dénkee mu doxal tuuti di dikk di leen rendre compte ngeen ñëw di ko déglu loolu it dafa baax ndax dina mën a xam est-ce que li mu ne li mu leen waxoon ci la nekk wala am na lu manqué kon li def rek mooy ñaanal Amath ak équipe bi mu àndal mais dafa leen di wax ne Amath jëmm la rek Adama Diallo mii it jëmm la rek mais ñun ba ñuy dugg ci politique. esprit lañ doon construire maanaam di tabax un Gossas solidaire où chacun a sa place et où chacun trouve sa place loolu moo tax képp ku liggéey di nga liggéey du Sénégal sax mënul liggéey lépp loolu moo tax ay partenaires moo tax mu ONG organisation non gouvernementale mu am société civile mu am ay ASC pour ñi nga xamante ne ni les places laissées vides par l'État sont occupées par ces acteurs important bi développement boo xamee loolu dina tax yow nga tàllal loxo ñëpp képp ku bëgg a liggéey nii mu ko doxalee fu nekk mu jéem a dem les leviers de développement de l'État yi nga xam ne président Macky Sall moo ko mettre en place pour dimbali askan mu dem di ci laaj wàllu waa Colobane noonu ab maire noonu la war a liggéey. wala cee tayal wala cee yàlla ndax lii lu la defal moo tax ndax yow kese judduwoo Colobane yow kese jàngoo Colobane waaye da yëkkati sa loxo waa Colobane yëpp jàpp la man nag li may wax unanimité amul fenn 100 pour cent faloo ko amul waaye Amath moom mooy maire 100 pour cent waa Colobane wante waa Colobane fan ñu ko ci 100 pour cent parce que loolu aussi il faut mu leer il faut que ñu jël de la hauteur taxaw jàppale ñëpp uuf ñëpp. ku jot it yor mbiram bëgg a liggéey Colobane ñu créé la les condition doo mën a jàppale Colobane du wàññi dara fii ba 2027 sori na ñii mënuñu di liggéey ñii banque seen loxo di xaar 2027 na ñëpp liggéey bu ko defee ñu développé sunu Colobane ni ma ko waxee sànq wax naa ko sama gars àndal ko nee naa leen léegi dootuma feebar ba tiit amatuma lu may ragal ndax xam naa ne yàlla dimbali na ma ci ànd bi ma ànd ak yéen gis naa ci yéen yéen a ma gën a bëgg sax gosaas léegi te man loolu rek laa doon tabax gis naa ne it fàtte ngeen seen bopp ñu Gossas amaat ñu ànd ak moom koo ci jël ku fàtte boppam la kii Colobane ku bëgg Colobane kon tey esprit bi ñu doon tabax tax na mun na sax éternel ba nga xam ne képp ku nga xamante ni nii jël nañ la da des ci principe yi. des aussi ci liggéey bi parce que loolu rek mooy continuer ñun ji ay outils lañu rek ay nit lañu rek yi nga xam ne dañuy doxal politique bi di remercier le président Macky Sall.